na nag fitna euh, démb foofule ndax seen yi dafa am yenn pàcc ci résultat yi mu génne ba noppi te dañoo ne Alpha Condé moom moo jiitoogum euh, ñi fare ak Cellou Dalein Diallo mi jiite UFDG euh, mettitlu ko ba tax ñu doon jàmmarloo ak takk der yi moom Barka Ba di suñu envoyé spécial mi ngi foofu ca Conakry ginnaaw ba ñu la nuyoo ba noppi Barka lan lañ mën a jàpp ñaari fan ginnaaw élection yi ak tension yi ñu nemmeeku foofule ci Guinée. Euh, fii dafa mel ni mbir yi léegi lay doog a taxar naa si dëggantaan ginnaaw dëmb bu commission national indépendante bi muy kuréel guy saytu élection bi commencé rotal ay résultats partiels ci résultats yooyu euh, Guinée 38 euh, circonscription moo ko ëmb 4 lañ ci génnee ci 4 yooyu 4 yu ñu wone yëpp dañuy jàpp ne Alpha Condé la ñu déclaré ne moom moo ci raw Seydou Cellou Dalein Diallo ginnaaw mbir boobu nag bi mu amee. quartier yi nga xam ne dañu favorable lu Dalein Diallo yu ci ëpp nekk ci li ñuy wax l'axe mu commencé am ay ay jeunes yu génn daal di taal ay pneu di jàmmarloog force de l'ordre yi ba am na ñu ci nemmeeku ne ñàkk nañ ci seen bakkan mu mel ni tension bi commencé na yëg dëgg seetlu daloon jàll bi ñu tudd moom ci boppam euh, depuis démb munul génn munul euh, kenn munul dugg këram ay force de l'ordre ñoom ñoo ñëw daal di bare yoon bi encercler côté boobu noonu kenn du génn kenn du dugg ñun jëmoon nañ fa dem tey ci suba waaye kenn mënul accéder ci domicile u Cellou Dalein Diallo leneen li mooy ci am na ay gox ci biir euh, gine yu mel ni si Kédougou Macenta nekk euh, côté région forestière bi foofu tamit amoon na ay affrontement entre partisans wu RPG bu Alpha Condé ak euh, bu Cellou Dalein Diallo mu mel ni daal affrontement yi ñu doon ragal ñëpp di ko redouter mu ngi commencé am ndànk-ndànk fu mu toll nii nag soo déggee ne capitale bi ndax yëngatu na ay pàcc la. lépp lu jëm ci centre ville bi lu mel ni Kaloum foofu nit ñaa ngi dox di dox seen soxla amul benn problème waaye quartier nooru Conakry yi ñu leen di tuddee l'axe mu jëm Bambeto Kosa Hamdalay Wanindra foofu noonu moo ëpp ay yëngu-yëngu parce que partisan wu seetlu daleen jàllo yi foofu lañ gën a bëri dafa mel ni rek suñ la waxee ndax euh, dakaar dafa yëngatu ñenn ñi mun nañ la wax ne su dee centre ville lañ nekk par exemple ñu nekk Sandaga wala Point E dara xewu fa. waaye soo demee Géejawaay euh, wala Pikine euh, wala Yëmbal foofu la mbir yi di euh, am noonu la Conakry configuré woo loolu moo tax souvent suñu ne dafa yëngatu am ñoo xam ne dañuy jàpp ne amul amul lu yëngatu ay pàcc la biir Conakry ñu comprendre ko noonu leneen lu ñu leen bëgg a dégtal aussi. mooy que commission électorale national bi dina génne wat ak ngoon yeneen résultat mu mel ni dañu nekk di benn bennal euh, résultat yi alors est-ce que yooyu tamit euh, yan résultat moo nar a duppee ci urne yi kenn xamagul waaye lu am ba des daal mooy tension bi mu ngi yéeg euh, ndànk-ndànk fii ci Conakry soxna Natam